ay ca mi ngi noonu nii rek lañuy ñuy uh, ànd ak yéen tey ci uh, samedi bi baat bi nag dafa xaw a dee tey tuuti maa ngi koy jéggalu ay ca duñ def rek lu dul uh, sant yàlla ak yonent bi ak suñuy ñaari waajur dem ba d'accord dem ba. Hmm? d'accord duñ def rek lu dul euh, julli ci Seydina Mohamed euh, sangu sangi sant Serigne Saliou Mbacké suñu yaakaaru tey ëllëg di ñaanal sëñ Mountakha Bachir yàlla na dund lu bare bare bari ci barki Cheikhul Khadim mi nga xam ne moom la ñu yaakaar tey ëllëg. Euh, di ñaanal kilifa diine yi ci àddina bi yëpp yal na leen yàlla may jàmm ci barke Seydouna Mohamed yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci at mu bees mi ñoom itamit ñu gis ci seen bopp muy seen at waaye itamit di sàkku ñaan ci ñoom di ñaan euh, ñu ñaanal ñu suñ borom may ñu mucc <clears throat> yàlla may ñu wér may ñu mucc may ko surtout suñu ay njaboot ak bépp euh, doomu aadama ci barke Cheikhul Khadim comme niñ ko daan defee euh, chaque jour tous les samedis euh, noonu la ñuy continuer ki yéen tey di leen wax ne leen am ngeen fi ay seeni cheveux non seulement am ngeen fi tamit ay merci beaucoup merci defal loolu Abdourahmane merci waay mais gayen yaa fi ne de mais yokk ko ma xool gayen mais gayen loolu daf may motiver day tax du yuuxu <coughs> ay ca bu leen fàtte ni euh, euh, am ngeen fi seen ay ah ah waaw d'accord na ma may café merci beaucoup euh, bu leen fàtte ni am nañ seen ay greffage comme d'hab pour yéen am nañ seen ay mbasin Suisse Gold comme d'hab pour yéen ah. mi ngi ñëw waaw day ñëw bu ma jàkkaarloog ñoom ñoom dañ may ñaanal sax ñoom ñiy seetaan ba tax na euh, euh, dañuy continuer nag di wéyal li nga xam ne mooy cadeau fin d'année yi parce que ñu ni tamit euh, yaa xamti nañ liñ fi yor gaaw jeex ñu jàll ca leneen parce que nee nañ Sénégal la pays de la teranga waaye groupe Futur Média miroir du Sénégal moo tax fépp fu sénégalais ne dañu la fay fekk rek jox la li nga xam ne mooy sa wërsëg ci mbir mi <coughs> baax baal leen ma tey lu ma def na ngeen ma baal lu ma def rek nangeen ma baal coono <laughs> la dama sonn dama tooy te njaga xam naa ko nee na ma maa ngi yow ba barsak damay rey <laughs> yërëmuma ay njaga nduur anama woo leen ko ne ko yërëmal poté lee ay njagaa gëm liggéey waay <coughs> ah mais yow da nga xamul ni njaga moom li mu doon la bëgg jàppee nit ñi njaga rëboo la njaga mooy dem léegi Chine jënd ay bagage jóge fa dem Amérique jënd bagage ñëw Sénégal xëy ci télé bi ay waay njaga tonton njaga ana nga ngir yàlla rek ngir yàlla rek ngir yàlla tonton njaga ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla <laughs> ay ca tey nag li ci gën a neex mooy dañuy àndandoog yéen ak benn euh, son bu neex boo xam ne euh, xaw ma ndax neex na borom mais xam naa ni neex na sénégalais yi yéen ñi nekk ci Facebook live euh, bu ma leen nuyoo ba pare ak ñi nekk ci Instagram bi rawatina nag ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci seen biiri kër di nu seetaan ci seeni télévision partout dans le monde ah kon nag tey dama am benn son boo xam ne man sama bopp dama yàgg topp yéen waa Facebook live bi ak ñi ci kër yi seen ay bëgg tey nag dama am sama son boo xam ne sama propre son la sama dama ko bëgg di ko enjoy ah te nit nag bu yàggee topp sa bànneex mënoo lu dul bu bës ñëwee mu am bëgg-bëggam nga bëggale ko ko ba tax na tey dama am sama son préféré je sais même pas ba xam ndax ki woy woy bi sax ndax woy bi neex na ko wala maak moom kan moo bëgg musique bi euh, depuis euh, euh, barki démb ba tey maa ngi déglu son bi mu mel ni man la woy mu mel ni yéen ñi bëgg lu baax la woy mu mel ni yéen ñi moytandiku ci àddina yéen la woy mu mel ni yéen borom jom yi nekk devant tout le monde ah ba pare bari ay yoon wi bëri ay xaaxaam dafa mel ni woy bi yéen lañ ko woy nee naa la woy bu yeetewul diglewul ay nax képp la ba tax ne bi ah nee naa macha allah ni mu ubbeekoo ci 2021 bi man mooy sama musique préférée euh, pour nag ma kontaan ba tàmbali ci teraanga Sénégal da ngeen ma koy may rek ma déglu ko Alaaji Malick yéen nag xoolal chanson bi surprise la ba pare dafa am ñaar léegi nag ñu dem euh, get ko ah, ñëwaat ci plateau bi ma jël téléphone 88 628 su ma paree chanson bi may déglu parce que sama musique préférée la <coughs> lii de jar na congé ñaari weer ah. ay mbay tooyu ma damaa xepp waay tooyu ma rek yem ci noo tooyu ma damaa xepp eh, ay mbay mbaa équipe corona dun ma seet si waay boole ma ci kaa yi nag far mais man maa ngi doon takk masque j'espère que du ngeen yaakaar ni euh, euh, waa corona duñ yaakaar ni je corona non du tout maa ngi ak Serigne rek waaw waaw maa ngi ku tedd ki rek bu mettee it damay jàpp rek ndax nee naa leen lu metti dootul am ci kaw suuf fii ci Sénégal ndax euh, bu naroon a metti sax waa tonton Ndiaga tonton Ndiaga e dama <laughs> foog ni moom ni ko yàlla bindee ñun ñun ay jigéen lañ Ndiaga jël na àddinaam yëpp def ko liggéey liggéey rek liggéey bañ na ko du ndekki du añ du reer kokaa lay dunde kokaa kokaa rek ay Ndiaga may ñu congé waaye eh, nii laay continuer sax ndax mu tellement woo guddi ne ma pote noppalikul de mois <laughs> mais congé nag tons wuyu ma congé day ànd ak enveloppe bu baax wala check man mii la sa bi la bëgg ay ca ah dangaa bëgg ñu ànd bu may dem congé mais dangaa njaboot léegi ah di nga daggal xale yi billet maag yow njaga daggal ñu ñu delluwaat yow foo bëgg ñu dem Angleterre wala man Turquie laa jëm nag Turquie ñu dem Turquie dama découvrir Turquie mais neex na trop incha allahu rabbi maa ngi sàkku congé ngir yàlla tonton Ndiaga ngir yàlla maak Amza <laughs> ey lii ay ca ñu dem déglu sama chanson préférée mais 88628 xam leen ni après son bi may déglu parce que man maa ko bëgg ah li tax ngeen xam ni dama bëgg son bi il faut que yéen ngeen déglul ko seen bopp di ngeen xam li son bi di wax yéen ku ci nekk ci yéen man ngeen a gis seen bopp ci musique bu bees bii nga xam ne mooy macha allah euh, musique début de l' année. ay ca 88628 20 20 88628 22 22 88620 ay yokkal leen ma sama retour Abdourahmane dimbale ma nafoor nafoor encore encore. 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 76 76 88 628

naa leen jël ci téléphone bi ñu dem leen ni waay loolu aja eh di eh leen aba tàccu leen waay ñi nekk ci salle bi technicien yeeg caméraman yëpp aba dirigé la tàccu yooyu foofu bariwu leen waaye nag tàccu cey lii bay koy sàmmi yow sa bëggeel dangay moytu ñi lay fexeel du ñu dem dul waxi nobel di la jéem a jaar ci feneen essaie de courir tant que tourner hetze waaxulte gëteen daw daw daw daw bul faale asalaamaaleykum ci neen nañu daa wax leneen jotee de courir sans te retourner Malick te at mu bees mi yow dama la cee fas yéenee defal ay ay ay émission yoo xam ne dangay ngay bëggee rek ndax Pod ak Vieux Diouf bañ àndee Malick ak Vieux Diouf a gën a neex laa bëgg a dégg <laughs> kon yow xoolal même buñ la woowee ci kaw ne la bul mais xoolal ni ngay filmer Pod sax bu leen déglu yow del jël sama tànk jël sama genou ñëw ba ci fu la saf ci man nga taxaw ak kam waa lii laa bëgg xale bu sañsee da nga koy génne ñeme naa télé bi yow itamit ñemeel ñemeel li ngay def alaaji Malick wala daa am looy xel ñaar ci man dafa mel ne da ngay fiir Malick mais bàyyi ma nag ma dem ay <laughs> ca ma jël wi téléphone vingt 628 dama koy tegle tey maa ngi toog ak invité bi nii xale bi nga xamante ne macha allah moo saf Sénégal nag ànd ak artisam yi tey fii dinañ ko ruq ba mu mokk comme ni ko géwél yi waxee dinañ ko ruq. ayca 88 628 22 22 allo. allo oui Amina. est-ce que xam nga ne tey laa lay teral ba toroxal la barke yonent bi tey jii jox ma sa tur xool billaay maa la raw wuy ma. tey sama yaram dafa tàng te souvent bu sama yaram tàngee lu ma neex laay def tey nag ku dugg tey ma gaañ la. bu yeboon na ñëpp xool ci yow te yow danga naan karat ma jël ki topp ci yow. billaay te bu may wax it bu ma <laughs> kenn soor nañ woote rek te xam ne tey moom. tey ñu xam ne lépp dëgg la bu ma la ubbilee léegi ñu xam ne lépp dëgg la. jox ma sa tur nga xool ñu préparé dem ci pomi jërë sekk naka. jërë sekk. jërë sekk. waaw. jërë foo ñuy woowee sekk. maa ngi leen di yaa ngi ñuy woowee pikin ginnaaw raay tali rue 10 tali bu mag. Géejawaay. ah Géejawaay. ana café gi booy. mais yéen booy da ngeen may suufu ah mais garaawul mais coo bu doon seen patron Youssou du ngeen ko def nii mais coolul indi thank you na ñëw na ñëw na ñëw waaw waaw Amadou waay ay ca jëri waaw ne yaa ngi Pikine Guédiawaye waay ay ca pare nga ñu àndandoo nga jël sa cadeau fin waaw. ay ca 14 raisons yi am nga ci sa dëkk préféré Abdourahmane yokkuma waay sama baat bi daa dee yokkuma rek waaw kay naa gën a foor jëri. waaw ñu dem ci 14 raisons yi nga jël sa dëkk préféré te xam ne bu ma paree ci yow ki topp noonu ci yow di tuut tuuti noonu dama koy jël moom mu noppaliku. Ah? jël naa ah. jël nga Ndar. waaw. ay ca ñu ànd dem Ndar. ay ca ndar géej sama sips bi waay ay ca ñu dem ndar ndar géej mais ndar ndar dinga fa fekk lu ne tey jëri waaw na nga fexe ba liñ lay jox na ci jënd jën nag ah, oh. yaa jël Saint-Louis de waaye yow tonton Bouba yow ñëpp a ngi naan déggaguñ sa meilleur vœu wala da kaa déclaré ba pare ah tey ah bu ñëpp toogee ngay jóg da leen respecté mais yow ngoon dangay def live dangay joxe sa vœu parce que Seydina Limaamu Laay kii rek laa bëgg saa yu ma ko waxee mu may ma dara <laughs> ay ja ñu dem ndar <clears throat> Bouba Ndour ngoon dana toj télé bi ay ca saint ay ayca Saint-Louis jox na la cinquante mille francs te yàgguloo fi ah. mu nekk sa cadeau <laughs> fin ne xanaa bëgg nga waaw ah, kontaan naa Amina. léegi dañuy àndandoo dem léegi ci weef bi pour nga xam ne duma la téye balaa sa crédit di jeex comme cadeau la duñ fi téye kenn xoola sa téléphone. bu ñëwee rek nga dama ñëw na ñu tàggatoo. waaw ah, waaw. ki topp ci moom 88 628 22 22 ki topp ci moom 88 628 20 20. topp ci moom 88628 04 05 88628 76 76 damay jël keneen euh, message bi ñëw na. déedéet ñëw na wa. ñëw na. ñëw na. mosul yàggee nii nee ma ñëw na wala ñëwul. ñëw na ñëw na. ah kon kay remercier ma yow itamit te kuppu. merci. jërëjëf bëgguñu seen crédit jeex bëgguñ ngeen di sonn fii ak yee ngeen ñuy jot ñu jox leen li ngeen fi am nee naa la amul benn dépense danga naan cirib dugg ne sama cadeau lay laaj ñu ubbil la 14 raisons yi am saa nga tànn bu la saf loo fa fekk bu ko xeeb ndax liggéeyoo ko. danoo laa biir rek gis ni ngeen ñu bëggee moo tax ñu daal di créer Sénégal pour seen ay cadeau fin d'année ñun ak yéen ba février daaw 30 euh, million la woon euh, ren nag est-ce que doo ma bëggalaat ci sama woy bu bees bii ah man lii ah wuy bi man de bukki yéem a tiital wuy ma est-ce que doo ma bëggalaat Alaaji Malick woy bi nag ndeysaan jël naa ko waay ndeysaan xamoon naa kii ni barki Serigne Touba bu àddina di dox dina woy lu ma neex tey jii la woy lu ma neex yokk ko ma xool dugal ñu daal artiste baa di la ñëpp bëgg waaw waaw aba diriger le tàcc yooyu foofu sànni yow sa bëggeel dangay moytu ñi lay fexeel du ñu dem dul waxi nobel di la jéem a jaar ci feneen essaie de courir tant que tourner geze waxul te gëteen kaw kaw kaw kaw bul faale asalaamaaleykum ci neen nañu daa ba leneen côté de Pouli centre de tournée Alaaji Malick di nga ma ko mayaat mais Amza mës ngaa dégg lu neexee nii lii de barki Serigne Touba Mbacke moo dàq kafe gi may naan. caat laa man man man caat laa man lu ma neex laay def lu ma neex laa leen di béggalee ba pare ñibbi dama ànd ak daanaan nag téléphone laay ñëw nii 88 628 mais damaa bëgg téléphone bi avant ma koy laal léegi nga xam ne kii day sàjj wan ñu moom la kan suy daaneel may jël téléphone bu ci kenn teg téléphone am continuer leen di ma woo ci numéro yi ngeen di gis ci bas d'écran bi 628 20 20 bul sax nuyoo sàjjal rek doo ko ñëw jugal taxaw retour na ko mu may ñu retour fii waaw tey ma di la jiin taalibe sëriñ Saaliw yaa ko yëngal xale bi ma nopp dem na bàyyi ma waaw waaw yaa ka joma ñaaw jëlal sa yëf Amina jël saxaar waa ci gaar gisuma la ma dellu jël onto gisuma avion li daw ci air bi gisuma la ma ba ma lay jiin jomba ñaaw yaa koy yëngal wol ma Amina Amina waaw waaw waaw yaa ka neexire jëlal sa yow taalibe sëriñ Saaliw man bi may jiin sa yaay dala ñaanal doo torox ana Amina Amina laay woo waaw waaw yaa ka jomba ñaaw jëlal sa yow yow de ndeysaan taalibe Sëriñ Saaliw bi live nuyu leen mais téléphone laa jëm 88 628 ku ma woo léegi ma jël la euh, ku ma woo rek laa soxla nii de ku ma ci njëkk a jot nag moom dootoo ko def duma la fi téye te loo fi fekk yaay borom ci sa cadeau fin d'année ñu demaat nag euh, ci Facebook live bi ma coppati fa kenn nag teel koo jox ci greffage yi may joxe Omar Cheval lañ ci àndal ñoo ko moom dañu koy maye. ay cadeau fin d'année la xaa nii laa koy jóoree mel na ku ne marché mi ngi nii ay fullees la xaama daaj benn xaama daaj benn mi ngi xama daaj benn ay fullees la mi ngi nii am na couleur yëpp nag am na couleur yëpp am na longueur yëpp Omar cheveux lañ ci àndal ca marché Zinga xanaa maa garaaw xanaa maa man yu baax wuy ma xoolal wan leen til bi ci biir gis nga yaa koy dagal sa bopp bees tàq la étiquette baa ngi ci ay ca 88 628 woo leen ma gaaw mais damay dem Facebook live Eva bind leen dimbale leen ma rek maa nga Facebook live bind leen gaaw su ma paree rek direct téléphone ay ko ci bàyyi sa téléphone ba ba sa nawle jiitu la ay ko ci gaawul composé ban jiitu la fii booy woote da ngay téye di taaxirlu di xaar te xam ne buñ la jëlee teral la la nga ca ñàkkoon lépp da nga koy jotaat te fii nee naa la mbir mi doy na waar ay cadeau amul ci benn déwén ñoom dinañ copier ay ca 88628 22 22 mais 88628 20 20 Facebook live damay dem ci ñoom xaaral ma tànn beaucoup de cœur pour nous ay cœur rek laay laaj ay cœur rek ay cœur rek may ma mayaat ma sama woy bi ma xool doog a dem ci ñoom mayaat ma woy bi rek ma bokkook ñoom su ma jógee ci woy bi rek Facebook live laa jëm après téléphone day gaaw yokkal ma ko nag. yokkal ma ko nag yooyu foofu bariwu leen waaye nag. tàccu. Baay Ñas ni ngay sàmmi yow sa bëggeel da ngay moytu ñi lay fexeel du ñu dem dul waxi nobel di la jéem a jaar ci feneen essaie de courir tant que tu tournes laa soxla da ngeen a war a xam ni plateau fin d'année yi toj na ren ñu ngi ba tey plein air moo tax plein air rek daa ànd ak te euh, mouchoir yow nag gis nga Amadou wax ma ban contrat nga yor léegi ñu yokkal la ko nan la CD yi nag Amadou yow ku mel ni yow gisuma ko fi café café ñëw ataaya nga naanaa ko jox ma mouchoir nga pomp ko zel nga indi dañ lay defal CD yi. yow man bëgg naa la ay ca Facebook live bind leen maa ngi lim de ñii bind ci kaw laa wax bind leen cheveux laay maye Facebook live bu ma paree jëlaat keneen wéev ko euh, téléphone 88 628 bu amee ko fa nekk bu ma paree Facebook live rek ngeen jox ma ko euh, ma dem nag lim ko tudd amul numéro kii ay ca dama koy jox ko tudd ndeysaan ay waay nu may def ba capturer ko soxna Fall bind leen numéro gaaw ah ah tudd Soxna Fall xaar leen damaa juum Soxna May Fall Soxna Ami Fall moom turam bi gudd na di bind leen Soxna Ami Fall 78 014 67 98 ay waay baat bi daa dee moo tax neexul tey mais man sonori bu garaaw laa yor nii fi mu ne nii xam ngeen kan laay nurool nii kun jàppoon di ko waaj mu rëcc non musut am. Euh, soxna Ami Fall 78 ci Facebook live laa nekk waaw 78 014 67 98 ay ca soxna Ami Fall yaa moom euh, cheveux bi euh, boo paree nga ñëw jël si ko nee naa la couleur yëpp am na tey xoolal tey mbir mi daal ala daw mi daaj ji beneen paquet rek laay dégg Omar Cheveux nag merci beaucoup kontaan nañ moom lañu àndal ci mbir mi lii il faut que ma tegaat ci Youssou Ndour bii mu ray ma benn yoon rek. waaye yow lii xew di Amza yow lii sa jabar du gaaw dugg ci Facebook bi mën koo am waaye yow eh yow lii xew di bii aw leen bind nga ko ay ca téléphone laa jëm chaque jour nii lay demee après Facebook téléphone ma demaat Facebook léegi ki may jël dama koy wéev Facebook laay pare leen te toog ki may jël léegi léegi dama koy wéev ay ca téléphone 88 628 22 22 allo. allo oui. da nga teel a pointé nag da nga nante de. <laughs> daa daa mel ne ba nga composé ba tey coupé woo. waaw da ngay bañ ko taxaw sa kanam xam naa la. <laughs> loolu lañuy wax pointé. ay <laughs> ca noo tudd. maa ngi tudd Adja mais Adja xamoo lan moo baax ci baat bu dee. nan ah. moo tax sama baat bi dee nii. Ah, maa ngi nii di ci boole sax xëm. Adja wala moo ubbi rek yooyu yëpp waxoo ko. dégg ma <laughs> ah, en yàgg naa si. Adja sama baat bi ma lay wax utoo ci solution ma ne la wala yow sa yoon newu ci ma ubbil la rek nga dem. ma naan was. waaw dama lay ubbil bu fekkee ne li ma lay jox neex na la nga tegtal ma nu ñuy defaree was. waaw d'accord non dangay encaisser daw xam naa la. <laughs> Aïcha à ta place Saint-Louis. Aïcha noo tudd nga ne. Adja Cissé. Adja Cissé. waaw jaaxa si sama damel yow nga xaaral ma teel laa ubbil baal ma tànnal la. d'accord man maa lay tànnal ma tànn. Adja ah, dama lay tànnal ndax yow macha allah Cissé nga sant jaaxa si sama damel seen i maam buur lañu woon. seen i maam wàlliw lañu woon ba pare nag nekkoon jàmbaaru xare. <clears throat> jaaxa si sama damel yow man maa lay tànnal dakaar gii. kontaan naa vérifier leen nag li may tànn. yow sa contrat boo bëggee mu baax vérifier li may tànn. Adja. oui jaaxle si sama damel Ndakaaroo ngoog loo fekk yàlla na la ji. amiin. Adja. mais may mel ni góor. Adja Dakar Dakar Dakar. Adja. oui jaaxle si kenn du la neenal. ma laal. Dakar. 3, 2, Dakar, francs. Adja. oui. Adja xanaa bëgg nga. ñaata la. muy yéen ñaar dërëm. dégg nga. Adja. <laughs> am nga ci cadeau yi ñetti junni. dama lay nax cent mille francs la ajaa ndax yow jaaxasi sama demel. merci beaucoup Amina. waa Adja xoolal ah taxawoon ci kanamam de Adja xool ko. oui. yaa jongo nag. Adja yaa ngi gis. non dama daw bu sori balaa ligne bi <laughs> ah, wax na dëgg day bañ ko jël place am. ay cër ci topp ci Adja boo moytul mooy ëppale Adja woo leen ma. xoolal message bi ndax ñëw na. waaw yegg ay ca ma demaat téléphone nii laa koy defee léegi ñëw ci sama invité bi 88 628 22 22 88 628 20 20 88 628 76 76 88 628 65 65 ma jëlaat léegi téléphone xaaral tuuti euh, ma wax numéro yi ba pare ñëw ci téléphone bi 88 628 20 20 ma dem nag Facebook live wéev kenn doog a ñëw téléphone ni ajaa def ngeen di def moom da ko cee teg rek teggiwul waaye kuy ci jaay naan xaaral ma xaar tuuti. ak poté noppi na bu commencé waatee laay composé keneen dugg sa place woo leen ma gaaw yu di 628 22 de gaaw ma ne coppet kenn léegi mais Facebook live laa jëm wéev leen wéev ay ca may ma Youssou Ndour bi ma soog a wéev waa Facebook lii moom waaye yow xanaa lii amul CD bukki yi barka an laa jëm tegal leen ko yokku ko nag yokku ko leen aba tàccu leen ci salle bi technicien yee caméraman yëpp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 tangan gedune bëteen kaw kaw kaw kaw bul faale asalaamaaleykum ci neen nañu daa wax leneen soo cee de courir sans te retourner noonu la meilleure chanson de l'année ah Amza ah meilleure chanson début d'année ah man de lii mosuma koo dund laa la foogoon naa ne wéy duma joom maa Malick lii boole leen ko ci sama émission yëpp ndax sax borom bu ko gisee bég ndax mu xam ne wéy na lu ma neex man man man loolu yëpp sama yoon neeku ci wéy bii damaa bëgg borom xam ni ndekete poté laa wéyal woy bi jël naa ko bis ni ki tey muy sama woy te ku laal woy bi di nga ma fay ayca ñu dem nag euh, euh, joxe euh, wave ci Facebook live bi mais su ma paree rek damay demaat téléphone noonu laa koy defee dama koy teg te duma ko teggi day tàng jër ak man man moom yii man ba pare xale yi dañ yor seen seen liif di ko cawe mais man liif buñ baxal laa yor dama koy baxal ba mu tàng di la ko caw ngay dem toog ayca ma dem tànn benn xale bu jigéen poté amaguma chance bokk ci mbir mi dimbale leen ma rek ngeen wéev ma ay ca ñëw ñëwal ñu wéev la yaa ko teree neex jël leen numéro ngeen wéev ko mi ngi tuddu Ami Thiam numéro Ami Thiam mi ngi 77 116 10 13 daa teel a yomb daa teel a yomb Ami Thiam la tudd numéro mi ngi ci 77. 116 10 13 bul nangu kenn ku la xoqatal ami caam rafetal bul nangu kenn ku la xoqatal ndax réew mi daa bëri bukki yow rafetal rek bul nangu ku la ñaawalit ay ca ñu dem déglu ami caam doog a ñëw nag ci téléphone bi yéen préparé leen après ami caam rek damay ñëw ci yéen ñëw nag ci nogay mbaay mii nga xam ni yaa woy li la jus boobu lay naan yaa woy li allo nogay mbaay kii nu mu tudd ami caam allo Aliou ma belle wol leen ma Ami Thiam ngeen wéev ko mi ngi Facebook live bu ma paree Ami Thiam damay jëlaat keneen ci Facebook live bi Aliou Aliou waaw ay ca ñu waaw maa ngi koy xaar bu duggee rek bu ngeen ko jotee ñu ngi koy woo jotuñu ko mais bu dee dañ ko jotul dañuy woo keneen ci Facebook live bi ay ca Ami Thiam yow rek lañuy xaar bu dee dangay ngay koo coupeel bu dee da ngay bind message arrêté ko te xool numéro bi lay woo privé la wala mu nekk 33 fii ci TFM nga dugg bokk ci jël seen cadeau fin d'année ay ca teraanga Sénégal nee naa leen dimanche suba préparé leen te xam ne Pape Cheikh dina mayewaat beneen salon beneen un million wala yeneeni téléphone wala parure bi wala tablette bi wala leneen loo xam ne xaaru leen ko woon préparé leen suba 17h Pape Cheikh dina tojati Sénégal. dina tojati réew mi ay ca 88 628 22 22 après kii rek damay jël téléphone alo eh, bu fekkee jotu leen ko waxal leen ne na man fii allo waa Rési na kenn réagir ma xam allo at mu bees mi il faut que Youssou am ñum changé côté Rési ah yow la ci yow la damay tudd sa tur ñu changé la ci at mi nga xaar 2025. ay ca ñu dem ci Youssou Ndour bi ci man la euh, ngeen changé sama eh mi ngi ci ligne bi allo ah nama mayaat Youssou Ndour bi sama micro moo am problème bu dee mi ngi ci ligne bi dama xaar te ngeen woo ma gaaw su may dugg di jël kenn ay ca allo de folie sans te retourner. que nekk ci caméra yi ak Xaadim Cissé Diakha Cissé ma damel mi des ki yaay doomu bàyyi saalixa waaye bàyyi saalixa Cissé waaye sëriñam waaye tamit yaay baayam ndax saalixa sëriñ saaliw loon ko tuddee yow nag ngay Xaadimul Rasul moom mooy saalixa yéen da ngeen a bokk yoon nga sant Cissé mu sant Cissé leen dalaa lay xamal ku la ne sa maam tàppet la dóor ko ndax xeex bi nga xamante ne nii ku nekk bëggoon na ci barkeelu sama ma ne woon ci kanam te keroog bañ bëggee jaaxal ku tedd ki moo pes commandant ba te terewu koo añ sa maam xaree tax ñu jox ko cité ba tuddee ko dammel xaadim Cissé ma ngay jooy jaaxal Cissé ma dammel waaye yow xaadim sa sa xol bi kii na na dem ci cardio bi ndax yow xale yu rafet yii lii ma la wax bu la jooyloo xale yi di la rey xaadim waaye Cissé Cissé yi ñoom noonu lañ mel danoo amee émotion kun gis bëgg moytu loolu nag dalay yàqal xamal li nga bëgg téye ko dégg nga waaw ah, kay ayca léegi papa Saliha woo ma ne ma danga may gaaruwaale ah yow danga war a régler dinaa la mës a rey boo ma reyee ba ma dugal la ci kaso bii <laughs> dama mën a tooñ. ayca aram wañ galo ñu ngi lay nuyu bu baax maamu Saliha Cissé jaxa Cissé maa damel waaye kenn du sama doom ju góor ji petit mbay sang sayeer nee naa ko yow la ma sa bàyyi muuroon teg ma ci ay mbokkam te xoqataluñ ma benn yoon. bu ma xamee or xàmmee jamaa yéen a tax jolof-jolof yi nga xamante ne ñàkk jariñu rek ngeen di dundee barke rasulilaay yow Petit Laye yow yaa bokk ak ministre bi Aly Ngouille Ndiaye barke Serigne Touba yow nag kaay ma wax la kan mooy sa maam sa maam lañ won fii àjjanaam mu daal di faatu ci si ndax fañ ko jëmee foo ko sëñ baam ba jëmee ko gënal fii yow mbay sang sa yeer sëtu seex nga waaye say maam ay buur lañ ndax ñoo xàll jolof ñëpp dëkk barke yonent bi betuwaar gi sa maam jur sa baay ay ñax kepp la woon Seydou Mbaye fa njëkk dëkk xàllal ku fa yeewoo barke yonent bi kon yow mbay sang sa yar dama lay ñaanal rek yàlla def la mag yow ak ñoom maîtresse Fatou mi nga toogal ñoom bébé Seydou ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal ay ca ñu ñëw ci téléphone mais balaa boobu dama bëgg fii tàng nogay noo tudd Maguette Maguette demal ma xool jëppalu naa ne ca wiir wiiroo ànd ak Serigne fa jaareem du wóor na ma. kay. jébbalu na ya ca wiir wiir. ànd ak sëñ Bamba ca jaareem. am na ma Bamba toog ba xel ma dara. waaw ku doo yonin ba doo saaba yi la te dama ci jóg 128 ma demaat Facebook live ki ñu weef nu mu mujjee faatu xawma naka faal nu mu mujjee moom soxna xawma naka réagir leen yéen ndeysaan dañ koy wow muy jokkoo kon bàyyi ko ma tànn keneen bàyyi ko ma tànn keneen ay ca jël leen kii ngeen weeval ma ko léegi léegi sama xol gën a sedd euh, mi ngi tudd euh, mi ngi tudd moom i tamit euh, Aram Gueye

40 49 17 832 49 17 ay ca bu ngeen noppee ci kooku rek ma daw jël téléphone mais la temps que ngeen di woo kooku euh, muy euh, muy muy muy yéex euh, woo leen ko en attendant jox ma benn publicité ma xool ñu xaj-xajal ci lépp benn yoon parce que ñoom itamit ci lañ bokk Facebook live laa nekk nii di wéevu xale yi waa Facebook wootante leen maa ngi nii di leen wéev maa ngi nii di leen wéev ay ca jëlal kooku nekk Facebook live nga wéev ko dugalal ma ko nii ci ligne bi ma xool nu ma ko dundee moom xam naa di seetaan rek di bëgg ñuy woola ci jox la cadeau jar na jënd connexion bu doy waaye tamit toog sa kër yor sa téléphone di fo ba jot ñu ñu teral la jar na jënd ko léegi bu doy. ay ca jox ma ki ci ki ñu wéev léegi Facebook live laa nekk jox ma ko ay ca Alaaji Malick benn publicité bu paree rek allo. allo Amina. na def yow laa tuddu léegi. waaw ma tudd léegi. foo ñuy woowee ni. Euh, Parcelles Assainies. ñoo la woo wala yaa ñu moo woo. yéen a ko. waaw man mii maa la kon xanaa kon xanaa lan lañ la wax bañ la woowee. Ah, ñu ne la dañ lay jox cadeau fin d'année ci Amina Poté. waaw dégg nga. dafa mel ne amoo réseau de. yàlla na leen yàlla jàppale bu baax. amiin ci barki Serigne Saliou. voilà yokk xéwal. Aïcha est-ce que mën ngaa xool sa téléphone ndax euh, message su xaalis bi ñëw na ma delluwaat foofu Facebook live. téléphone waaw xaaral ma. 88 628 ngeen jox ma benn appel léegi moom bu paree mais en attendant ma jël benn publicité doo ko dem téléphone léegi léegi léegi. continuer leen te xam ne maa ngi waat ci téléphone yi dans euh, ma xool dans 3 minutes dans 3 minutes damay jël téléphone te bu ma ko jëlee danaa ko jox lu ëpp li ma fi joxe sànq. ay ca waaw xoolal haut-parleur nga xool. ay ca allo waaw. waaw da nga koy xool duñ la bàyyi tànk jotoo ci. waaw d'accord. ayca dañuy dem ànd ak Dico Tex comme moom euh, message bi mi ngi koy xaar moom fa mu nekkee moo am problème mu réseau léegi ñu dem xool euh, euh, Seydou Dabo mi nga xam ne moom nee naa ko jaaykatu piis yi ci réew mi yëpp fi mu ne moo leen di jaay kenn daggatul bi avion di dem Chine wala Dubaï wala autrice ndax Seydou daabo xool leen ko te ngeen profité jël numéro téléphone am yéen ñi bëgg ay piis yu rafet Sénégal fi mu ne Seydou Dabo la ñu jël am na lu fi xewoon daaw de koo xam ne kum jaayul tissu doo sol mais ay ca gërëm ma nga këpp gërëm ma gaaw nga këpp ay ca jërëjëf ay ca ñu dem nag xool Seydou Dabo bu ma noppee Seydou Dabo rek damay jël téléphone ubbi beneen dëkk te xam naa la fa nekk war naa duul ñu ngi ma koy wax naan ma fi mu ne nii bu dee yow man maa leen tànnal <laughs> la fa nekk dana doy waar ay ca ñu dem xool Seydou daabo mi nga xam ne macha allah euh, réew mi yëpp fi mu ne ñëpp a ngi commerce à cause de Seydou daabo loo indi mu jàppale la nga commerce ndax moom pièces yu rafet yu original yi moom mii moo koy jaay ndax partenaire la am partout dans le monde di dugal nag mbir mi nu mu ko neexee fii ci Sénégal kooku nag mooy Djigo euh, Tex ay ca ñu dem. marché bi bari lool ay basin. yu gaaw a furi amuñu qualité teg ci nag di yëbbu waaye heureusement ba fi Jigotex nekkee waaw ndax Jigotex ñoo ñu indil bazin Swiss Gold qualité 100 pour cent teg ci original bazin Swiss Gold du yëbb du furi te it na muy tàkkee ëpp na Jigotex dañoo xamkat kat li baax ci askan wi ñu dem ba Suisse indil leen ko muy bazin Swiss Gold. te nag li ci gën a neex arc en la maanaam couleur bu ngeen bëgg couleur bu leen të couleur bu ngeen taamu su ngeen ñëwee ci Jigotex di ngeen ko mën a am ci bazin Swiss Gold bi l'original Jigotex yemuñu rek tamit ci bazin am nañu ay brodé autriche yu rafet am nañu xeetu brodé boo leen bëgg am nañu vax am nañu vaal am nañu ay jupir yu neex a sañseel lool waaye daal man li ma ci taamu mooy basin bi bazin Swiss Gold foo ko sol ñu xoolaat la su ngeen demee fee ci marché HLM 5 di ngeen fa fekk ñuy wax Seydou daabo wala ngeen woo ko ci 77 355 35 21 77 355 35 21 am nañu page Facebook da ngeen di tàppee Bazin Gold am nañu tamit page l'officiel Bazin Suisse Gold bazin de haute qualité bazin bien parfumé bazin anti décoloration bazin du peuple ah Bazin Suisse Gold bii mooy suñu yëf. numéro téléphone yaa ngi noonu Seydou Dabo euh, daw leen ngeen woo ko gaaw euh, dem fekk ko marché HLM moom toujours moo ñuy may tamit Suisse Gold yi ñuy maye ci Facebook live beeg partout dañuy demaat Facebook live mais avant boobu jox ma téléphone 88 628. 22 22 88 628 20 20 ñu dem téléphone ci Teranga Sénégal les gars allo. allo. noo def. ça va. yow dafa mel ni booy nga de. waaw. wala kado amul booy ak mag. amul. amul. kado amul booy. mais booy kon tey ñu laa jox kon somu booy comme booy nga ñu jox la som bu yem. déedéet. ah booy yow lan nga bëgg carrément ci sa biir xol. ya yow ñaataat nga am. mais am naa 11 ans. 11 ans 100000. booy yow junni sa ëpp na ci yow. moom moo ko ah da ngay taral sa yaay. Ah. ah kon teraanga Sénégal comme da ngay teral nit ñaari yoon yow ak sa yaay kon nan dem ubbil ko yow lan mooy sa dëkk préféré Aïcha à ta place Aïcha lan mooy sa dëkk préféré. Kolda. ah ñu dem Kolda ah. waaw. Aïcha Kolda anamu xaaral ma liir Saint-Louis Dakar Louga Matam Diourbel Thiès après moom damay jël keneen de. ndax damay léegi ma tàggoo après moom damay jël keneen. waaw. Kaffrine xaw ma fan ak fan Tambacounda Kédougou Sédhiou Ziguinchor Kolda. waaw. ayca booy est-ce que li ngay dégg ci suuf mën nga ko fecc. mais son bi comme booy nga war nga ko mën a fecc. ah. waaw. ayca ñu dem ma xool ayca yokkal leen ko ko ñu dem ma xool. maa ngi lay gis nii booy ayca yëngul. xam naa ma ngay toj seen kër ñëw bi waaw ay ca day teral yaayam code 3 2 1 0 Kolda 100 francs ma ngay jubilé mi may fàttali ba Pape Bouba Diop dugalee biu turki ba ay ca booy lii du somu booy nag booy booy liy des ci tableau bi gaaw leen ngeen woo ma fi mu ne liy fi des dëkk boo ubbi nii lay demee woo leen ma gaaw ci 628 22 22 booy arrêté yuuxu yi ba pare. naanal ndox régler sa émotion ba encaissé. merci moo lay yuuxu. ay ca ah. ñëw na. xoolal mais yow neel sa fans yi ñu noppi ba nga pare ñii dootuñ noppeeti. ñii ma gis ba suba dañuy yuuxu xale yii ma gis wax nañ dëgg dëkk bi dafa dëgg. ñëw na waaw ñëw na waaw merci ma xool yuuxul nel woo. <laughs> mbete bëy <laughs> ay jël euh, xale bi macha allah day ndaanaan am ma bëgg ñu découvrir ko ci acapella pour ngeen xam ni réew mi ñu toll kenn mënu ko fi euh, euh, naka la Adja Mbaye Maguette Mbaye hmm. Maguette jugal taxaw nga may ma acapella boo xam ne ku ma jëlaat léegi ubbi waatal la 100000 88 628 22 22 88 628 ah euh, Bijouterie solution laay dem léegi jël téléphone ay ca bu leen yàqamti gis nga xale bi yàqamtiwul moo tax ñu ubbil ko loolu te li des ci dëkk yi presque nii la mel defe naa euh, ci kaw man mataan na leen ah lépp noonu la mel ayca kon 88 628 20 20 88 628 22 22 ñi ngi taxaw ak Maguette Mbaye ñu dem xool euh, li jeeg ji bëgg muy or ngalam ayca let's go ci euh, bijouterie la solution Adja Thiam madame Niang euh, et bonne fin d'année Adja Thiam madame Niang mes meilleurs vœux ñu ngi lay ñaanal yàlla yeggali liggéey bi jigéen ju jub ji macha allah dañ ne nit kenn du ko waatal waaye ñun dey mën nañ laa waatal ni ci sa jëkkër nga yem te yaa ngi koy jàppale Adja Thiam loolu rëy na nit waxal ko ci télévision. millions waaye yow yaa toll noonu askan nag dafa important waaye souvent nga juddoo ci kër ñëpp baax nga bon waaye yow fa nga bokk kenn gënu la madame ñaa dundal merveille et bonne année ñu dem voici bijouterie la solution nekk fii ci Sacré-Cœur waaw ci ñaari voies yi comme l'appétit vient en mangeant ñooñu nga xam ni ñoom ñoo di waa gratte la bëgg liggéey ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di bijouterie la solution ndax seen xarañ kon nag bijouterie la solution moo fi teewal gratte la xool leen bijou gratte la yii macha allah jàpp leen ni dañuy def fabrication locale fabrication locale ci or nag dañ ko jàng te donn ko loolu daal mooy suñu métier bi njëkk ba noppi nag leneen soog cee tegu bijouterie la solution boo jógee ci VDN bi jël sa ndeyjoor mel ni ku jëm boulangerie jaune xoolal ci sa ndeyjoor di nga gis bijouterie la solution la solution nag am na espace prestige boo bëggee jënd ci privé nga woote jël rendez-vous ci 77 720 17 17 boo ñëwee madame Niang Adji Thiam dina la teral wan la li nga bëgg toppatoo la bu baax moom ak équipe am voici bijouterie la solution nekk fii ci Sacré-Cœur waaw ci ñaari voies yi comme l'appétit vient en mangeant ñooñu nga xam ni ñoom ñoo di waa gratte-ciel la bëgg liggéey ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di bijouterie la solution ndax seen xarañ ay ca bu leen xaddi dans trois minutes damay jël téléphone ci kaw ma jàllale quelques anniversaire ngeen baal ma léegi la ma dab ah mais anniversaire yi rek téléphone la après ñu dem découvrir ki nga xamante ne macha allah baat bi nee naa ko baatu wurus la ñëpp a ko bëgg man dañ ma koo centré ma xool ay vidéo am ne ko duma la xaar maa lay jël si ñu dem uh, ci uh, uh, quelque anniversaire daal di ñëwaat alaaji Malick bu fekkee ne pare na ay ca di ñaanal waa Grazilia yëpp jàmm yéen ñu fa nekk njëkkee aji caam yi ah, ay mbokki boppam yéen ñëpp ñi ngi leen di ñaanal waaye heureusement moom la ko ndayam ji ko jur nàmpal di waxal moom la ko ndayu jëkkëram ja di waxal ñun seetaan nañ vidéo yi te loolu il faut que nga baax dëggantaan nee naa la jeeg bala moo dégg bala moo dégg waaw góor nee naa la dana metti loolu il faut que nga góorlu kon nag aji ñun assuré nañ sa njàmbaar te sa jëkkër ak say njëkkee fu ñu toll ñu ngi lay gërëm dañ lay ñaanal rek li ci des yàlla na barkeel ci barki Cheikhul Khadim ay ci anniversaire Ami Ndaw waaw ay ci happy birthday yi Ami Ndaw borom RFM dem Mbacke loo dund doyul at mu bees mii ñu ngi la ci ñaanal euh, nga dund ba doyal ah di wax tamit mes meilleurs vœux mu nekk santé prospérité beaucoup d'argent ak xéwal bu jeex te barkeel ñu dem ci keneen ay ca euh, ah euh, Daba Diané Daba Dieynaba Diané ñu ngi koy wax. Euh, ba Diané depuis Liberté 6 extension joyeux anniversaire Dieynaba at mi yow tamit yàlla na nekk sa at ñoo ko bokk man le 10 janvier euh, mooy sama anniversaire kon ñun ay séex la ñun ñi juddu janvier Dieynaba que du bonheur et la totale pour vous beaucoup de bonheur ayca let's go ci keneen ayca ñu dem ci Mouhamed Doucouré bébé Mouhamed mon amour ñu ngi lay souhaiter un très bon anniversaire di la ñaanal at mu neex ci yow yàlla may la gudd fan ak wér gi yaram ba nga teral maman ak papa en tout cas tata Poté t'aime très très très fort ayca ñu dem ci keneen. ayca mi ngi noonu kon ñi ci des ñëpp ñu ngi leen di ñaanal xappi birthday di leen ñaanal gudd fan di leen ñaanal at mi yàlla na nekk at mu gën ci yoom téléphone bi préparé leen ma ko ma découvrir ndaanaan bii nga xamante ne lu mu woy mu neex ay ci jugal taxaw ñu jàkkaarloo kenn du yow xam naa da ngay ñëwaat. xam naa une fois mais bi pa da ngay teel a ñëw 10 heures. jeex na bu ñu découvrir baat bi xool neel der. ay waay ki may woyal man ki may wayaloo Cheikh Amaro ki may wayal mooy ki may wayal mooy Cheikh Amare sama nijaay ji may jiin ma dun ma tubaabak ma diine ma tubaabak may wayal mooy ki ma dun ma tubaabak nijaay ji may dala sa bongo sa bongo bi ah Cheikh mi may jiin ay je dama la doon ma tubaaba ma diine ma tubaaba jàmm ñal nga yàlla mi ci jaam ñi ma batat te gëggu ma naray maam géej gi Abba ataa à ta booy. waaw booy à ta place booy pas de monsieur monsieur monsieur madame borom tama ji xanaa d'accord nga léegi ci sama wuyu si nga ma jox micro bi <laughs> xanaa léegi d'accord nga. <laughs> dama ko bëgg. <laughs> borom tama ji ni mu mënee tama noonu la tàngee. booy bi may wax mu leey ma mokkal a mu naan ma du a booy ba ma moytul ay xoolal ay xaj laa lay booleel boo génnee ñu màtt la ndax yéen xaj rek ngeen ragal kër gu ngeen doxaani seen fa xaj daaw ñu bari xaj a tax ñu ñàkk seen gel moo tax paa yu bari cinq cent la ñuy bind te dara du ne ci biir ay ca ñu demaat wi vingt 628 xam leen ne ku ci nekk loo ubbi sa wërsëg la ndax fi mu ne nii chaque jour bi émission bi di waaj a jeex dañuy am ay euh, dëkk yoo xam ne boo ko ubbee macha allah. di nga am dépense su at waaye cadeau bi ndeysaan da nga koy dund ba déwén balaa ñuy jël téléphone 88 628 euh, euh, hmm? ah ah waa xaaral tuuti rek. ci téléphone laa jëm may ma tuuti rek tuuti rek ci téléphone yi laa jëm ndax damaa bëgg ñoom ñiy woote tamit ñu gaaw jël li ñu moom ndax xam naa ne fii ak février soreetul ndax bu buñ ne janvier février moo ciy tegu incha allah février moom buñ ci duggee rek dootuñ sori te du jeex te moo tax gaaw leen ngeen jël si li nga xam ni yéene ko moom muy seeni ay cadeau teranga Sénégal la ñu wax deuxième édition nee naa la ñi ngeek ay tablettes yu doy waar ay téléphones yu doy waar yi mujjee xew te mucc ayib waaye ay enveloppe yu tàkk pour yéen via Wave nag lañ leen koy dugalal lu ngeen fi am ci kado muy xaalis ataaya bii maa ko doon naan yàlla na xel dee tuf tuf tuf kaas bii ngay génn dawal gaaw baat bi dee na doyut <laughs> ay ca ñu dem nag euh, téléphone 88628 22 22 88628 20 20 waaye damay maye waat euh, beneen jesner euh, ak beneen wave ci Facebook live bi laa bëgg a maye nii léegi léegi léegi ah? Facebook waa d'accord xaaral ma ñëw Facebook live laa bëgg a dem nii euh, euh, ma tànn maa ngi gis beaucoup de cœur pour man Facebook live ñi ngi may wax ne ma dinañ weevaat lu doy waar pour yéen waaye yow plus tard bi mu may wax pour lan la plus tard plus tard de lan. ay ca Facebook live dem leen maa ngi gis kuñ naan euh, Awa Gaye hmm, ak kiñ naan euh, Yaama Ndiaye ak kuñ naan euh, Naka ak kuñ naan dafa naaw ak kuñ naan Marème kante ak kuñ naan dafa teel a daw ak kuñ naan Aram Jaxate ak kuñ naan xawma naka Facebook live laa jëm nii nii nii laal leen beneen maa ngi lim de beaucoup de cœur jox leen ma kër yu baree bari rek waaw Facebook live xam naa léegi nii waaw xaaral tuuti rek mu gën a fees xaaral tuuti rek mu gën a fees su ma paree Facebook live direct téléphone laa jëm bala maa ñëwat ci xale bi mbaa yi nga xam ne wéy rek lay def ay ca Facebook live laa jëm de ay ca ay ca Facebook live laa jëm de ma ñaata ngeen koy wéev cinquante mille <laughs> Facebook live kon daw leen daw leen kooku du yuuxu ci biir kan la Alaaji Malick maa ngi dégg ku yuuxu yuuxu bu sori <laughs> dama <laughs> ko bëgg yàlla na gudd fan ay ca Facebook live laa jëm de TFM fi mu ne nii nee nañ bii ba Facebook live boo moytuwul 1 million yi dañ leen koy wéev ay loolu bu ngeen ko defoon di ngeen ma sagal. loolu mbaa jàmm la nogay. loolu yow noo tuddati. màgget loolu mbaa jàmm la. loolu xam ngeen di jàmm tokkee. 1 million Facebook live. moo man tee ma ah tee ñoo connecté wu ñun ñëpp. jar na ko nag ay ca Facebook live laa jëm maa ngi tànnaat keneen ki may tànn greffage laa koy may ak xaalis ki may tànn ñaar laay boole ci moom greffage ak xaalis waaye bu ma paree Facebook live damay jubal ba ca téléphone ba ndax ñi ngi may wax ne fii nii boo may tuut 300000 la mu ngi fi de. ay ca à ta place Dakar Kolda Kolda va Kolda kale Kolda va mais Kolda il veut partir. Kolda Mukale ayca Facebook live laa jëm Facebook live laa jëm xaadim xoolal waa Facebook live ma xool ndax dinga nga xàmmee seen i tur ayca xoolal waa Facebook live xaadim xoolal ma zoom ko xoolal waa Facebook live maa ngi noonu ci biir maa jongo ma nag xoolal xoolal ni mu xonkee xoolal xol yi xale yi ñoo ma bëgg li ñu amoon ci xol li Omaro yoroon ci bakkan yëpp joxe na ko waaw kay. jum ko li Omaro amoon ci bakkan yëpp tayle na ko waaye xale yi amoon ci xol yëpp jox nañ ma ko. non il faut que ma joxe lu ëpp cinquante mille tey ci Facebook ma ko rek zumal ma ko xoolal lii xoolal lii Facebook live lii mbaa jàmm la lii jàmm la ay ca Facebook live laa jëm de. Facebook live laa jëm nii de ayca maa ngi tànn kenn ci Facebook live bi ngeen wéev ko numéro mi ngi tudd Alou daam Camara Alou daam Camara jël leen numéro mu yaay wu yaay ah na Alalu Alalu Dame Camara xanaa kii jigéen la 78 114 78 bu ma paree rek téléphone laa jëm ndax dégg naa li ci fii ku ko ubbi tey dégg dëgg xam naa dañ ciy may borom tama ji ndax mu jënd ci galaas di naan borom tama xam moom ndooy la sant. mooy dafa gaaw a xeex de. ah loolu lébu yi rek lay dal gaaw gaaw jàpp nañ ko fi borom tama tamaji borom tamaji buñ damoon sa tànk bi ba dootoo demati xew di nga xam <laughs> doo seetee di sa gel bi ay <laughs> non. ayca 78 la.

ci kanam tuuti ki may jël nii xam nga lu ma koy def. dama koy wéef ba pare may ko greffage. waaw loolu loolu loolu la doon. ah loolu kay du jàmm yow kenn du yow ci mim réew. lii du jàmm de booy. jamono toll nii da nga rukk ba mu nooy. <laughs> mais da koy wax sa tamakat gi bala ma koo gaañ. xam nga moom ndeysaan jarbaatu. baal ki ngay dàmp baal kii ngay dàmp. te sànq dégg naa Youssou Ndour ni mu tooyale sama xol tooyale ko sa xol. waa billaay wallaay moom nijaay ma nekkoon ci ginnaaw papa Youssou di tama Tamaji di tama ji papa Assane Thiam eh, euh, xanaa baatam la xanaa moom moo nekk ci sa gannaaw di la ruqal Tamaji moo nekk ci sama kanam di ko rukk ba mu nooy waru ngoone Njaay ay ca Facebook live jox leen ma téléphone Facebook live euh, gaaw leen euh, minutes yi ci des dama koy jox waa téléphone nag ah, waa téléphone préparé leen fii de ku ko ubbi di nga ubbi lu rëy tey lii moom ku ko ubbi di nga ko ubbi ba pare taf sa gémmiñ fii moom ku ko ubbi tey fii nii vingt 88 628 22 22 88 628 20 20 88 628 76 76 fii ku ko ubbi rek tey di nga ubbi lu rëy jox ma ko bu fekkee nekk fa rek ma jël keneen maa ngi dem de ki ngeen may woowal jotu leen ko allo. allo oui Poté. am nga sens dama la doon changé nii. teg maa bañ a mais yow loo wax nii ci ci ci ci ñu bëgg a bëgg a defanteeg yow. ah man de wéef bee ma gënal. yow noo tudd waaw wéef bee la gënal dan lay wéef yow defal ndànk rek te du ñoo la woo. waaw dinañ la wéef alalu daam. waaw yow yaay alalu daam kamara. waaw. waaw kii xaalis rek lay xaar gisul dara wéef leen ko mu dem ay ca wuy ma. ah. dama laa bëggoon boole la wéef a greffage mais dama lay wéef rek yow nga dem comme da ngaa yàqamti noo xaar yooyu bàyyi ma wéef la. man damay kolu sax. ah da ngay kolu. Ah. ah yombalal nga ñu ko macha allah ayca wéev leen ko ma demaat Facebook live gaaw wéev leen ko wéev leen ko wéev leen ko téléphone laa jëm de ñamalaat ma yuusu nduur bi ma xool ay yuusu mii. ah man de jaaxle naa boo nee at mii peut-être mu joxe ne man mii damay waaj mu génn ci loo xam ne xale yi dañ naan ko njambaan la da ngay toog way yuusu nduur bii de ku ne mën nga koo jaftee doo tifli doo wacc way bii forox na toll de way bii waa alalu daam ndax jot nga liñ lay yónnee yow noo tudd Camara waaye yow ki ci téléphone bi du wax allo. waa. waa kii keneen la wala nu mu demee noonu lii de du jàmm man ndax damay bëgg a joom mi allo téléphone allo lii du jàmm leneen xew na. rappelé leen ma ko dafa dagg mais woowaat leen ko comme mbir mi du loterie du gañaa ki ma doon waxal dafa dagg mais ñu ngi koy woowaat ndax mbir mi ku kuñ ne am nga fi cadeau même bu sa crédit jeexee ñun dañ lay rappelé mais aca ku ci dof dof lu ba sa ba coupé te jeexaloo da ñuy gëj dégg ba déwén troisième édition ay <laughs> ca yéen a ko moom bu mu tax ngeen dëkk ci kër gi di indi problème bëgguma problème ay ca ñu demaat Facebook live tànnaat keneen gaaw jox leen ma kooku ma demaat Facebook live léegi tànn keneen ay ca le temps que muy ñëw 88 628 22 22 après moom téléphone may leen ma Youssou Ndour bi ma 15 tuuti dëkk bi dafa bëri bukki yow te ko leen seen waxul te gëteen daw daw ci neen na ñëw daa wax leneen jotee ñu war a wéef anamu alu kooku dafa dem mais kooku mënu leen ko jotaat ah yéen a ngi koy seet waa xam naa du ñu rappelé dafa ñor a jot message bi rek noppi looloo ma ci metti zéro jëf xam naa ma demaat Facebook live jox leen ma téléphone léegi léegi 88 628 22 22 ma ñëwaat ci xale bii mbaay li muy woy neex na lool ay ca téléphone téléphone réew mi dafa bari bukki waaw xam naa ay bu ma neexoon. allo oui. Koka man la kay. ay waay Amina kontaan naa. bilaay maa la raw grand sama baat bi moo dee noo tudd Moussa. léegi nag jot nga ma jeex na tàkk kii kan la Moussa. waay. yow noo tudd Moussa. Anna Thérèse. Thérèse. Angle Thérèse. waaw. Angle Thérèse. waaw. Angleterre dañuy dem ba dootuñ dégg ñoom ndax koom-koom bi koom-koom baaxul Anna Thérèse mu ne ma Angleterre mu ne ma waaw Angleterre waaw dégg nga fi mu ne koom-koom bi rek dégguma sax ay yow laa bëgg ak yooyu dóor la Anna waaw ma gaaw ubbil la nga dem waaw danañu wax ba ci kanam ma ñu waxtaan ba ci kanam wala ma ubbil la rek nga dem. waaw loo ci bëgg bëgg na ma laa bëgg yow. waaw wax ci benn rek ana balaa sa crédit bee dagg ma ubbil la rek nga dem wala ñu wax ba ci kanam. ma ubbil la. waaw ubbil ma. ah ñaw. ay ca Anna Thérèse. waaw dëkk yii yëpp fukki dëkk yeeg euh, ñeent muy 14 régions Sénégal bu la ci gën a neex. mu ci gën ah bëgg naa kii dugg de. ah lim soree tax nga foog neex day ëppee foofu d'accord. <laughs> d'accord ñu dem xool Kédougou Kédougou moo ne nii moo ne ci biir ndox mi moom bañ na île bi ba mu wëree fii dafa naaj fii niis fii génne jant fii fenk vert fii ñëw ba ci géej gi taxaw ñu xool jën yi kon xam naa après day dem laa jëndi or. dégg lool. Kédougou ñu àndandoo Konte Anna. waaw. Anna. waaw. gisoo fi ne dara waaw waaw rek nga jàppoo. la waaw. ana na nga <laughs> ma ubbi. ubbi. waaw ubbi. yaa ngi may ba max daf ma ndànk. ana ana bu ma daane ci écran bi. aja ubbi kuy dugg ana ñu compter cinq. quatre. quatre trois. trois deux. un mi ngi mel ne kuy xaar examen. kee dugg cent mille francs. Amina Kédougou ko yor. Kédougou li fi des yëpp nii la mel leen ngeen jël seen wërsëg nee naa leen bu may a jeexal ku ne mën ngaa dugg 88 628 22 22 ku ma fekk ci bi tey nga dee. bu ma ñëwee lu ay ca xaaral bul demagum xaaral sa message yow. ay ca Facebook live laa jëm de. Ah, waa ñun ñoo la gën a bëgg xoolal sa téléphone. gis naa ko message yi doon na ma nekk. këppal nga daw këppal may ki topp ci yow. këppal gaaw Facebook live laa jëm léegi mais euh, cent 88 628 22 22 ku ma fekk ci ligne bi xam naa yow laay tëjee rek benn 300000 profito leen te xam ne dernière enveloppe bi maa koy joxe 300000 francs lay doon jugal gaaw waa d'accord ca xoolal noo koy bégal ma dama bëgg nga wéy sama benn yaay joo xam ne ñu ngi koy wax aram wañ kooku Amar Sam wañ mooy baayam waaye ba baayam baaxee ba nuppi góorlu na ba kenn gënu ko ndeyam di euh, ajaratu bel wali Yaxya mu El Hadj Yaxya Diop cëggal tàppe moom Daba Diouf la bokkal macha allah dama bëgg nga yàq ko xeteme maamu ba xare daan am sa maama mën ca gaaj gaañ bu ñu langee ay fo jaar ma woy la foi dar. yow mi dinaa jàppanteek yow nag en direct de. Baye Mbaye xam nga lu ma bëgg. Baye mbay nga toog rek lee. Baye Mbaye yaa ngi def lu ne ci tele bi yaa ko tey ubbi sa chemise bi nii Baye mbay yow xam nga sabaat bi yàlla ki may denc bu mu ci mucc. cey waaye sabaat bi ki may denc yàlla bu mu ci mucc da nga koy wëy waaye danga naan rek góoru faat kii ne sama américain bi. bu turam xale yi dañuy teel a jugaat ne ko waat coppet samay loxo ndax man na xale yi bëgg nañ sama yëf lu ma yor ñu jël ko man daal xam naa ñoom dun béy waaye xam naa daal xale yii tuf ma leen bi paa nag dama dem ba ambassade Amérique wut fa koo xam ni dégg olof bàyyi ko ngeen dégg mu naan xawari yu baleen ko mu romb ku ngeen dégg mu naan comme here du pour yéen olof yii <clears throat> ki ma njëkk a àndal noonu ki mujjee ñëw noonu kii fi ne bàyyi leen ko fi ah man xam naa Youssou nduur foo nekk nga jënd guro gaaw mu jeex rek benn yoon yow rek laay xaar Ndour ndax ki ci ambassade bii soriwul xale yi dañuy xam turam yóbbooti ko otol ko dañ lay këppatal <laughs> ma ñàkkaat te 2021 bii nag dimbale leen ma rek bàyyi laal xale yee bëgg sama alal yëngu ne man sama alal fu ne la yeewoo. ah waa xam nga nag fiñ toll nii de. man sama yëf buntu kër goo dem fekk mu fomm fa tànkam waaye buntu nekk boo demit fekk fa mu sumi dàllam baax ñëpp bëgg. waaw li tax ñoom dañuy bàyyi ba ma wut ba teg. waaye xanaa xam nga nan ma dimbale nag. ki nga bëgg ak ki bëgg daa bokkul. léegi nag man kii ma bàyyi sax kii nga xam ne moo ma jël rek kàjj ma ki mujjee dem nii te football ma dem ci beneen gone bokkul ak kii di soog a ñëw. lenn dinaa lay ko yëgal ak ni nga jongomaa nii. waa kii di soog a ñëw nii yàlla bu mucc sa baat bi. waaye yàlla mucc waaye xam nga nu mu tuddee. Ah. bu ko wax sax américain bu neex danga naan américain ndax ñu bokk fi. góoru góoru faat ginne yàlla bu mucc sa baat bi waxal ko lu rëy na guy ma ndax xam ne nopp naa ko waxal ko lu rëy yow itam guy ma defaral sëy bi mu gaaw ku bëgg bëgg naa ku bañ na ma jox góoru faat ginne man dama liggéey la leen ma góoru faat ginne góoru faat ginne naa la bu maamul woon fu ma la jëmee góoru fàttine man dama koy ji Marumba, Marumba naaye wax yaaka moom ku ko bañ a tudd ci télé daa fekk nga dajale góor ñoo àttanul man dama laaj bala maa dee xale yi naan vie privée vie professionnelle vie personnalité man xaw ma <laughs> loolu benn laay am bu demee ma wut keneen am saa may ma noonu deuxième bi. kon ngay ndax nag. coo jubul na ñëw rek am problème donte raxas bara waa indi boobu ma jox la bi ah. góor bu gënee da nga koy téye waaye. waa d'accord. d'accord Aïcha dugal ko Aïcha mon amour góoru Fatou Kiné yaa moom loolu sama ambassadeur bu ndaw bi xooloo sama juumte xooloo sama dara lu ma def boo bu ma dëppee nga baal ma waaye dee ma jéggal rek te xam ne lu ma def xool bu rafet ma ko yóbboo gise maabo dundal ba doyal barki yonent bi yow yaa ma bëgg di ma wër waaye man maa la raw fuuf yow ak koo bokkal ndax man noonu laa mel damay bëgg du ma wor nag waaye ku ma ba ma bala loolu tamit moom kër xam ko pour nga préparer ko pour avant mille vingt 2022 non duma ko sotti dama koy téye di naan ba mu jeex ñoom nan fande <laughs> mon amour yaa ngi gis sa femme ma nga may bind lu rëy mi naan ma bee dina ñu catu te moom duma wax beeb beeb damay wax beeb beeb dinañ ñu catu mais beeb nan ñu catu I love you so much juboo dafa neex damay soog a juboo xale bi ñaari weer dégguma ko cim ay ca ñu dem nag ci euh, ay anniversaire yoo xamante ne macha allah anniversaire de taille ay ca alaaji Malick bu noppee rek noppi ay ca hmm? joyeux anniversaire à Adelji depuis Saint-Louis euh, loo dund doyul Adelji mois de janvier bi sa weer la ñu ngi la ciy ñaanal suñu borom may la ci mbégte ak gudd fan ak xaalis bu baree baree bari ak jëkkër joo xam ne macha allah dalay nopp nga nopp ko alal di doog a ñëw jëkkër ju mel ni sama ambassade ambassadeur bu ñaaw bii ay ca keneen ki ay Aïcha Ngenax Mbay Mbay yaaram euh, longue vie et joyeux anniversaire ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gi yaram nga naax mbay euh, janvier bii nga juddu yàlla nga dund ay janvier yu baree baree bari de la part de ay Aïssatou Gueye Zeyna Mohamed ak maire Kodou Diarra Aïcha merci beaucoup ak Kouro Cissé waa jërëjëf euh, euh, longue vie ma yi loo dund doyul borom musóor bu jekk bii dundal ba doyal Aïcha ñu dem ci euh, ñu dem ci keneen xale yi dama leen di joxaat rek di leen dolliwaat ku ngeen ci jotee la ti nopp ko bu leen ko bàyyi mu gaaw a dem man moom naqari deret damay jaar rek yàlla na ma yàlla tàqaleeg naqari deret waaye nag bii paa moom dinaa góorlu ba sama yóbbante nag na dem ci yuusu waa na gaaw jënd guro balaa xale bii euh, xale yiy dugg di ñaan visa di ko gis di ma ko yóbbu laatal te xam nga maa ngi ci incha allah janvier bi le 10 lay am 32 ans te xale baa ngi nii ci ay 25 ans la am waa ay vingt cinq ans dimbale ma loolu yombut ci mim réew boo déggee xale ak mag du nu bante daa fekk bëggantewu leen I love you so much baby I love you moo ay waxu télé man télé laa am keneen kan laay waxal man dama sincère je partage tout avec vous ay ca ñu dem euh, euh, di ko jox na ki nga xam ne mooy Meta Balde Balde Pullo kenn du yow sama euh, tukuleur bi xale bi fonk ndayam bëgg ay mbokkam Meta dundal ba doyal di ko jox nag monsieur Niang di ko jox ki nga xamante ne nii nag mooy duma sax comprendre kii kan la Magui digital bonne et heureuse année dundal ba doyal siste gaynde Ndiaye la moom dama ko bëgg parce que gaynde la ah c'est la lionne Magui dundal Amza chéri mama Cheikh Janova depuis Janova maa ngi lay nuyu chéri Naxe Mbaye hmm, di nuyu ki nga xam ne mooy Alima bu Cheikh Anta Diop boo fa demee lu lay metti day wér mais dañuy wax joyeux anniversaire à Amel kan depuis France Amel euh, dundal ba doyal Amel Kane ah happy birthday à. Euh, mon fils à toi mon fils euh, Serigne Cheikh Samb mooy bi fee ju fi yónnee happy birthday à mon fils Serigne Cheikh Samb continuer leen di ma woote xam ne yii may def sama activité yii samay besoin yii bu ma paree rek damay jël téléphone. man ay temps damay nekk ci samay besoin mais bu ma paree rek dama leen di jël léegi léegi jox leen 300000 yu mujj yi kon woo leen ma happy birthday à Serigne Cheikh Samb de la part de ta maman. et euh, euh, toute la famille. Euh, je te souhaite euh, tout le bonheur du monde euh, santé prospérité yàlla na la yàlla aar ah bébé Serigne Cheikh Samb loo dund doy de la part de tonton Vieux Diouf euh, fii ci groupe Futurs Médias dafa mel ne Aram tey la anniversaire Aram Mbodj ah dafa mel ne dama ko gis si Matar Subatel mu dugal ko mais bu fekkee du tey par anticipation Aram Mbodj happy birthday par parfum yu neex yi xale bu jongoma bi te am valeur sama xaritu frère. Kisma Diakhaté kon Aram Mbodj je te souhaite que du bonheur janvier bi ak 2021 bi nekk sa at Aram Mbodj dundal ba doyal xale bu baax bu yaru bi mën a jaay parfum yu neex jeeg ji ku ci xeeñ neex Aram la di nuyu Ndey Mariam chéri Moustapha borom Dakar Afro moo ma seen lu pop lii nag mais veste bi tonton bàcc la Uh, Binta Mbaw madame Sey ñi ngi lay fóon fóon bu pata aaw buuru këram di nuyu ki nga xam ne mooy uh, mooy euh, kii duma xam turam sax billaay duma comprendre dem ba Istanbul nag di nuyu xale Istanbul yëpp euh, de la part de tonton Bac borom toi et mois mooy nuyu ay xaritam yoo xam ne dañuy àndandoo di liggéey nee na ma nuyul ma leen samay copain lañ ay liggéeykat lañ waa Istanbul ku ci mel ni Mamadou pen Mamadou Pen ah Mamadou Pen maa ngi lay nuyu Pape saw maa ngi lay nuyu di leen souhaiter mes meilleurs vœux Ibra Sow maa ngi leen nuyu di leen wax euh, bonne et heureuse année Ousmane Ka ak Dieye yéen ñëpp maa ngi leen di euh, nuyu bu baax a baax a baax nee naa la Turquie xale yaa nga fa di daan seen doole partout dans le monde foo dem fekk fa doomu sénégalais y a pas de sous-métier xam nga lu bon ñaan ak sàcc ba tax na xale yaa nga ca waar wa kon Istanbul yéen ñëpp maa ngi leen di béggee de la bu pop bi ay ca ñu dem nag ci téléphone euh, mais avant téléphone ma demaat Facebook live waaw li may joxe dafa bari moo tax nii lay def mhm. d'accord d'accord d'accord d'accord ay ca Facebook live laay waxal nii de Instagram ñu ngi leen di nuyu di leen bëggee yéen i tamit yéen a ngi xool TFM à travers Instagram mais yéen ñiy seetaan ci Instagram Facebook live dama bëgg seen xaalis di sakkan moo tax day leen ko yóbbu via Wave ah ce que yow xam nga Wave Maguette. ah Wave boo ko xamul nooy def ndax xam nga daan noppale. daan noppale ndax da ngay yónnee junni léegi te la nga cay fay bariwul. waaw yow Nogaye li nga wax nii li nga wax nii dafa nekk dëgg lii newul loo inventé Nogaye lii mbaa jàmm la. déedéet xam li tax mooy dama koy jëfandikoo. ah da nga ciy dugal lu bari li ci génn lu bari ndax damay toog léegi sama courant jeex bu la fekkee ci xaaju ji nooy def bu amul woon wéev kon yow da nga bëgg a wax da ngay jaabante wéev nu la neexee maa lax loolu da ngay dugg ci sa téléphone bi di génn nu la neexee di génn nu ma neexee <laughs> xale bi xaw ma ko koy denc mais am nga coow waaw bëgg naa jigéen ju xale day am salañ salañ jamaa may denc sama jëkkër ji ma nopp terewu ma dara bàyyi ma yow ku lay denc jamaa waa man kii sax nu ma ko war a woowee tur yëpp xale yi jël ngeen ko dimbale leen ñu ah jamaa foo féetee xale yi tur yu baax yépp jox ngeen ko seen jëkkër yi man nag damaa ñàkkoon mais damay doog amaat ban nga may wutal xanaa jamaay woote noonu nga di ko randal koo sànq noonu ma jaaxal ay ngeen waar nag yéen ñëpp gis naa leen te kontaan naa ah, lii nag leen tax ma sàll ko waaye ba leen ma i pat <laughs> damaa tooy bugguma ree billaay damaa tooy kii ya neex ndeysaan gëwël la man damay tuub am na ku ne daf may tuubal ku waanee ma woo démb nag naan ma jarul tuub bis ni ki tey def naa la ko te moom ngéwélam waru ko sax <laughs> ayca Viviane bi bu dee pare na rek man pare na ndax après Viviane rek damay jël téléphone mais damay dem ni Facebook live euh, jëlaat fa keneen hmm, damay dem Facebook live léegi jëlaat fa keneen ayca jël leen gaaw numéro téléphone bi may waaj a joxe ci Facebook live beaucoup de cœur pour nous Facebook live laa jëm mais euh, Maguette damaa bëgg nga sàllar ko rek ma dem téléphone ayca demal. Hmm, wéyal ma ki may defar yow ndax lii gën a rafet. Ah. waaye yow nu ma mel. ko nag da non waxatuma ki may denc waaye ki may defar laa wax ki may defaral sama kanam gi. lenn dinaa la ko yëgal man bi ma tëllee nee damaa tiit. waaye yow moom xoolal te bu ma sëlmu woon danga naan kii du poté. en tout cas day lim la defaral gis nga kii ma bëgg nii damay jékki-jékki sax woo ko naan ko bee. sans caaxaan bu dee leneen nga bëgg amul mën ngaa dem xam naa ni no boo ma ndax samay pëq ak samay pëq pëqal mu naan ma beeb beeb beeb arrêteel beeb <laughs> ku la bëgg du xool sa dara ndeke Amza maman mi ngay denc gisut sa benn defo maman mi ngay denc sa bët bu am laas du ko seen lu mu gis ci bët bi ci ay laas fromage la koy teg gruyère konda <laughs> ay yal na nu ya man nag nii laay def dinaa bàyyi sax di tudd ñi may denc ndax xale yi dañ koy kër. <laughs> cat daa gaaw. waaye yow ku njëkk kii bakkan bee rafet ma taxaw ci tele bi naan waaye sama waa ji borom bakkan bi xale yi na ko cëfit ba xam ndax di ngeen fa fekk dara. <laughs> waaye kii mi ngi fii ci ci ba ngaa tukki. loolu am fi ñu toll nii moom rek laa na xam naa mënuma ci sengeen dara de waaye xale yi xaama noppi sax ay waay poté ndax dama naan laaloo lii ndax dama añee suppu kànja tey. de walaay da nga koo nopp. dama nii laa mel. mbëggee la ni mel. nii laa mel. ki may sëyal bu ma ko déggul bu ma xëyee te déggu ko damay. daf maa bàyyi fan yii. mais màgget ñetti weer maa xale bi waxuñu. ah yaaye yow ñetti weer nga wax man ñetti fan. <laughs> waaye màgget man damaa rëy ku ma bloqué ku ma bàyyi dama lay bloqué te dama lay bàyyi. xam màgget man du ma xuloo te ku ma joteel yaa ma tooñ geste bu rafet laa defal sama nawle mu metti rek ne ma babe am am call you right now gi ma ne ko ay waay anglais yi waay give me français <laughs> kii dama ko bëgg waaye yow démb laay doxantu ba dajeeg moom mu naan man ndax di nga ko defati ma naan ko tuubi tuubi waay dootuma ko dolli dootuma ko ay yow ñëwal ci Amélia ndax kii xam naa fi ma jëm ak moom xale tey lañ koy jël ma pertati ay te wéet a ngi metti nag waxtaan ba trois heures ku ne tëddi dara dàq ko. loolu am ah. boo nobee doo gëmmantu waaye buñ la bàyyee dootoo nelaw ci àddina ñetti weer yi dama koy xool kilim bi day tàkk yooyu jooy. ci kilim buñ la bàyyee. kilim bi day tàkk yooyu jooy. ci kilim ngay jóg di pomp xaaju guddi boo jaaxlee def ñaari rakka nan yàlla defal li gën. <laughs> ah kii danaa jóg ci moom ndax xam naa sax du koy toog mais damay gën a jóg jugal. waxal ci Amélia dama xooyal meew def lan. di ko naan pour am jàmm. mu wàcce ko mënu mënu mënu mënuma ko ñàkkati ndax fi ma toll li ma ma trahir dafa bari tellement. Mm. j'ai un cœur fragile ba bëggatuma fi mu ne duggati ci ay bàyyante. léegi nag ma wax la da ngay boole patt ak organiser. non non non xam nga nu may def. Mm. jëlaat ko jëlaat photoom defaat ko fii ndax day waaj a def moom day waaj def lu rëy Alaaji Malick est-ce que doo ma may photoom kii nee na ma loolu. mooy coppati de loolu nga gis yow. nee na ma neel pat loolu nga gis <laughs> kii a bëgg. man gisuma loolu de. <coughs> waa téye ko non non ko damay tooñ téye ko. nañ ko denc ba beneen yoon gisuma loolu de yow kaay xool photo <laughs> yow nga ma jugóor loolu ma jàmm yow comme am nga jamaa. kaay ma wan la photo am kaay kaay nii ma wan la photo am. sama goro bi maa ngi koy nuyu waale. nuyu soog yow nuyul ñi nga bëgg a nuyu ma wan la photo waa ji. am saa téyel caméra bi téyel am saa bu ma zoom waay. loo wax ci kii yow yow loo wax ci kii <laughs> ana mu sax moom mu ngi nii yow loo wax ci kii. Eh, yaayay. yow loo wax ci kii. <laughs> yaayay. di nuruwul mbu daake. waaye dama ne defal lu la saf yaayay. ngeen comprendre ma nag dama gëjoon a nopp. ku ko ñàkkit wuti ko de. ah mooy yow tamit. jongo ma ji góor la. sama jiinu digg ba gi da ngeen foog ni neen la. doxalal ba ci kanam. <laughs> naka jekk ma xam ne du neen. moo day neen doxalal. man géwël laa doomi géwël laa maa doon samay maam boo ma dégloo wuy bàyyi mboy sama bàyyi la ay waay bàyyi mboy moo bu njëkkoon bu buur ma saana woote ay géwël lañu ji mu rëkk junjung yee doomi géwël laa mayu géwël laa Euh, dañuy dem nag remercier gërëm euh, sant ñi àndoon ak ñun surtout ñi nga xamante ne ni euh, ñoo ñoo ñoo mënul bind cat nag américain la ma nga naan ma mais béeb cat baaxul cat <laughs> bu ma leen tegalee vocal bi da ngeen yéen ñëpp kii dafa neex waaye bul naagu de bi du sa non sénégalais la ci côté yaayam mais côté papam américain la waaye dafa def ni Birane bàyyi ji da ko teel a génne réew mi mu jàngi ba mu ñëwee indi résultat ci ambassade bii la yeewoo biroom fa la ne këram fa la ne yal na la yàlla lafal cat waaye nag yàgg muñ lii lay def nit xale yi muñ leen ku leen bàyyeeti muñ leen te xam ni souvent ñàkk day tax nga ñànki waaye góor pour góor pire day ñàkk di muñ ay waay amati naa lu bees maa ngay waxati dinaa mel ni rajo bu yàqu kenn xamul ond bi fu ñu koy wàññee xaaral Faatu Géwél jàngaloon na ma ne ma boo bëggateel neel pat boo mereteel neel pat ayca damay jël dernier appel bi nag balaa 18h euh, mais damay gërëm rek Amélia mi nga xam ne moom ma maquillé ma rafet nii xale yi yéen ñu am cérémonie même invitation maquillage de ville nee naa leen lépp lay def déplacement partout dans le monde Sénégal ba Europe Sénégal ba Amérique Amélia dakaar ba Mbour partout ba Kédougou day dem 88 euh, 628 non dama juum. 77 Amélia 544 dix 78 woote leen gaaw def seeni ay réservation ñoo ma defal ñoom ma noono non non Amélia lii la bopp bi ak kanam gi Amélia merci beaucoup kontaan nañ ci yow lool 77 544 28 78 woote leen fa def euh, ay commande pour seeni i yére jox ma loolu ma xool waa côté boobu moom it niñ réagir seen réaction seen ay ca ki ci ligne bi dernier appel gaaw euh, Nogay Mbaye mën a tàggatoo allo Maguette ay Maguette lu ma dugal ci Nogay Mbaye allo. allo oui Amina. noo def ma chérie. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm. ay fàttali ma sa tur gaaw moo bi la dëkk bi. madame Pen la madame Pen. madame kan yaa ngi bëgg est-ce que. madame Pen Pen. madame Sène. waaw ayca madame ma delloo Kédougou place am Kédougou à ta place ayca madame Sène. waaw. Aïcha yaa ngi gis ni pomme yi demee seen ay cadeau fin d'année yaa ngi koy gis. waaw waaw. Aïcha est-ce que am nga ci sa euh, raison préférée. non Amina man nag damay bàyyi nga tànnal ma. kon baal ma imposé la ñaari dëkk ma xool ban nga ciy tànn ndax dafa am ci boo xamante ne bu diis bi fa la nekk te damay bañ tànn ko suba keneen wax ma ko may tànn ay ñaar dërëm léegi wuy ma. waaw. entre entre euh, entre euh, entre Kaolack. ak Fatick. Mhm. boo ci tànn rek benn bi am na lu baree bari bi ci des na xam naa yemamaay na ay ca gaawal. Amina xam nga ni sa dëkk lay tànn. ñu dem Kaolack. waaw kii mënoon naa tànn Fatick waay ay ca Kaolack dem gaaw vite fait <coughs> ay ca Kaolack Kaolack Kaolack Kaolack Kaolack. dërët ay ca Kaolack quatre trois deux un zéro résultat francs mënoon na oh. mënoon na jël nee na ah, oo oh, mais ay waay francs loolu mënu nekk waay non nekk loolu waaw mi ngi noonu xam nga ñii déjà déjà ñi nga xam ne ñoo la may ah ñi la may cinquante mille yi ñu ngi commencé sax mer naroon nañ la couper man maa bañ loolu mënul nekk quand même ma chérie yi ayca xoolal sa téléphone nga xool. Ah, waaw léegi kon lan ngay waxati. kontaan rek. ah loolu ki ko fi defoon dañ koo couper ba pare bloqué ko dootul dugg ci ci kado yi. ah kon maa ngi jéggalu. Ah, waaw mais amul problème mais booy wax sax nga wax ñu loo xamante ne nii c'est raisonnable. Oh, maa ngi jéggalu ah, kontaan naa trop. ay ca loobu je t'aime di kaw ca kanam. Ah, waaw jeex na lii laa bëgg. lii laa bëgg sinon da ngeen di tiital ñi nga xam ne dañ war a jël si seen ay cadeau te mbir mi demeewul <laughs> noonu. non nañu tenté seen chance rek parce que man même yu daaw naa ci. waaw mi ngi noonu ba pare. bu fàtte ni même déwén nit du gagné ay cadeau la cadeau fin d'année pour vous dégg nga. waaw d'accord ne ma maa raw ok maanaam. a merci beaucoup. merci euh, beaucoup Aïcha euh, duñ def lu dul bàyyi la nag nga nga nga tàggatoo 18h jot na te boo yéex di génn ci journal bi xam naa da ngay wéyal journaliste yi rek après kon. moo tax nag sa waa ji mi ngi lay nuyu Pape Seve. Pape Seve moo ma jox lii ni ma tegal. dafa mën moom may ñëw sama càmmiñ. ay ca Pape ku ko soxla woo ko ci 88 600 euh, non ay man 88 waay damay tëdd guddi sax di ko wax xale yi jug naan ma maa koy woo. 88 628 topp na ma nag ay ca Pape Cheveux ku bëgg greffage yu rafet moo ñu may greffage yi da nga koy woo ci 77 952 94 51 77 952 94 an ay ca tàggool gaaw. waaw maa ngi maa ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal nag askanu Darmanko. Mhm. ndax barki démb laa génne kilibooy ci sëñ Jéeri waa daan teraanga bu ne ñu defal ma ko. macha allah muy nuyu askanu Darmanko yëpp di la nuyu yow tamit. di jaajëfal caara mbay ci la bokk Darmanko la. waaw di jaajëfal nag sama waa ji. Demba Silma mi nga xamante ni moom boole ak Diagne Penda. macha allah ba lii yëpp am mu def teraanga ju bëri. ci man mooy sama bàjjanu doom Diagne mooy bàjjanu Saalixaa sama américaine bu ndaw boobu tamit. dégg nga loolu. Mm-hmm. di nuyu tamit di jaajëfal famille bi nga xamante ni ci laay sëy ñu bëgg ma lool. waaw di jaajëfal képp koo. xamante ni waaw. yaa ngi doon ma seetaan mënuma lim ñëpp mbay gay sama góor itali ñii gaaw. sama tëggkat yi nga xamante ni ñoom laa àndal laa Mbaye Talla Aline Badara sama doom Baye Mbaye sama góor. Mhm. jaajëfal naa ñëpp kontaan naa merci beaucoup heure journal dafa jot kontaan nañ ci yéen di leen jaajëfal continuer leen di woote même bu émission bi jeexee woote leen te xam ne ku ci woote yi tamit dinañ la jël jox la li nga xam ne mooy sa cadeau ci mbir mi comme dañu koy maye te fin d'année lañ waxoon février day jeex merci beaucoup Amza merci le euh, chef de régie ak euh, euh, Abdourahmane le patron de son ak kan encore defe naa ñooñu la ñu ngi leen di jëfal yeen ñi ci réseau sociaux bi Facebook internet bi yëpp képp ku nekk ci Instagram bi YouTube ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a baax di leen wax ne leen kontaan nañ ci yéen incha allah rabi à demain à lundi 11 h après Pape Cheikh Amina Poté la mais suba ci dimanche bi bay Cheikh dina ñëwaat ak yéen ci cado yi gën a mag merci beaucoup. lundi 11h30 ci Yeewu Leen Plus je vous aime